asalaamaaleykum gars yi ñu si ak leen bu baax di leen wax ngeen dal jàmm sur sport 221 li ñu fësal mooy que bu fekkee Kylian Mbappé dafay dem foofee ci Real de Madrid comme nañ ko fësale woon mooy que Paris da ko écarté fësalu nañ ne Barça mi ngi ci ginnaaw waaye loolee dara dëggu ci seen manière de faire pression waa Real ñu mën a def ay jéego mën a signer Kylian Mbappé Al Hilal proposé benn contrat record 300 millions d'euros ci benn at mu bañ ba tëdd ci suuf moom mi ngi wéyale entraînement am ndax rêve kenn du ko ko jëwante avec les Madrilènes bu fekkee ndar na fa hôtel yi bi nag lañ dara yaakaar kat ka nga xam ne mooy Ancelotti moom lañ dara teg kon ca kaay Courtois défense bi on aura Alaba Militao Fran Garcia ailier gauche Carvajal droite ca milieu ba Bellingham Camavinga Valverde ca kaw Vinicius à gauche Rodrigo à droite Mbappé ca kaw jàppale seen équipe jeune ndax kat voilà juróom ñetti jours yépp mën naa ne ci onze yi ku ci nekk ñaar fukki at ak juróom benn nga dara am ci at ca ban bu ñu naar fa am Tchouaméni Brahim Diaz Arda Güler est-ce que équipe boobee dina neex dëkku waaye loolu yépp dina leer bu fekk Kylian Mbappé utali na foofee ca Espagne également Man City ñoom nag ñu ngi ci yoonu de benn offre pour mën a jënd kii nga xam ne mooy euh, voilà Kimmich dans les prochains jours mooy ko jours yi nga xam ne ñu dugg. ancien milieu Man City moom nag mi ngi fësal lan moo war a mu def tànneefam foofee ca Barça mu ne nag di tax mu gën fa utile mooy ko dafay dem joŋante pour gagner Ligue des champions kooku mooy Gundogan kon depuis que ñoom bañ wàccee ci li nga xam ne mooy deuxième division bi. moom nag dafa quitté hôtel bi fa lañ newoon kookee mooy Martin Brechwaite xam ngeen ne doona doxal foofee ca Barcelone moom dafay bañ a jël seen appel coéquipier mi entraîneur ku ne mi ngi dafay jéego pour mu ñëw utaliwaat foofee waaye moom nee na kat bëggul jogante ci deuxième division espagnole bi. Casemiro nag moom mi ngi rencontré lan moo waral mu percé dans le foot mu ne nag ba mu amee 11 ans 12 ans ba mu yegsee Sao Paulo ñoom 300 jeunes la ñu woon et que recruteur bi 50 la bëggoon ci époque boobu attaquant la woon ku amoon doole la waa entraîneur benn nag nga li nga xam ne mooy milieu de kon foofee la wane boppam pour expliquer que jour da nga war a doon polyvalent say leçon de vie Ange Postecoglou entraîneur Tottenham mu ne nag dëgg la ki nga xam mooy Pape Matar Sarr bokk na ci ay benn joueur la bi nga xam exceptionnel dafay reetaan foo ko fekk am na benn talent bu mucc ayib. kon bon nouvelle la ñuy wax pour passionné bu génération foot bi ndax dina am temps de jeu bi nga xam ne ñu bëri. moom lañ ko yéene Lamine Camara moom nag dafa dugal benn plante yi match bi am doon ak am ak Standard ak Standard Liège le club belge dañu mujj témboo nag ñaari bal ci ñaar cérémonie CAF Awards bi nag jàpp nañ ko 11 décembre 2023 foofee ca Maroc ci gën a jekku pour remporter raay bi nañ ko rappeler mooy Osimhen le Nigérian. ek jàpp leen Pape Ousmane Sakho amal na entrainement bu njëkk ginnaaw bam xaatimee contrat club bu D2 bi nga xam ne mooy Kivli Rouen. prime de fidélité Mbappé ak waa Paris ñoo ko xaatimoon ci contre am naam nekk nañ ci jafe-jafe ndax bëgguñu ko jaay bëgguñu ko perdre gratuitement waaye nag à partir de premier août soit mardi bii kat dina laal 60 millions d'euros Anthony Elanga kiite na Manchester United signé foofee ci Nottingham Forest montant transfert ñu koy xayma. ci 17 millions d'euros Paris Saint-Germain Al Nassr foofee ca Japon doon amal ba si xaritoo ñaari équipe yooyu dañoo témboo zéro but partout. déggoo am na ci Juventus de Turin ak Barça ndax les Blaugrana abale nañ seen milieu terrain ivoirien bi ngeen mooy Franck Kessié am na benn option d'achat obligatoire mooy que app bu jeexee kat dinañ fay. 10 wala 15 millions d'euros waa Barcelone li ci dese mooy amal déggu ak jour bi buñ soxandikoo ci Gazzetta It Casa Sport ñoom li ñu fësal mooy que seen portier bi ngeen mooy Alioune Badara Fati jóge na foofee dem ci club bu congolais biñ naan tout puissant Mazembe xaatim na fa benn contrat bu ñaari at pour rappel moom jël na Ligue bi Coupe du Sénégal teg ci CAN ak ñoom Sadio Mané ak récemment mu jël CHAN bi. ka jàppale nag Fabrizio Romano mooy fësal ne agent bu Sadio Mané buy uyoo ci Rof Benzema dina dem ca Japon. ngir voilà amal waxtaan ak waa Al Nassr voilà mën a amal waxtaan pour ëllëgu Sadio Mané doomu bàmbali bii nag nangu na dem ci Arabie Saoudite comme ni nga ko fasalee ci kaw ñu defal ko li mu bëgg te waa na Munich noppi nañu ngir jaay ko bu ñu amee offre bu mucc ayib. ek jàpp leen les Hammers yi nga ñooy waa West Ham United fay nañu koppar gu tollal 40 millions. doro ngir waa Chelsea jaay leen seen anglais benn mooy Conor Gallagher waaye njiitu Chelsea benn mooy Todd la ak les Blues ñoom kat dañoo mujj lànk. accord personnel lañu wax ci diggante Chelsea ak doomu France benn mooy Michael Olise li ci des ak mooy Crystal place nangu offre bi nga xam ne Blues yi dinañ ko proposé Liverpool. ñoom toujours fañ tegoon seen tànk tegguñu ko bëgg nañ loolu la muy terrain italien bi mooy Marco Verratti waaye Paris ñoom ñi ngi laaj au moins soixante millions d'euros. et que Chelsea jege na loolu amal déggoo ak Ajax pour ñu jaay leen seen ndaw ganañee bi nga xam ne mooy Mohamed Kudus. le champion du monde Emiliano Martinez Inter de Milan daka bëggoon ba tax na fayoon nañ waa Aston Villa 15 millions d'euros waaye nag club bu Unai Emery bi kat dañoo dàq offre boobee kon ñoom ñi ngi xaar beneen offre. bu gën a kawe ñu proposé déggoo am na ci Tottenham Spartak Moscou transfert défenseur colombien bi mooy Davinson Sanchez benn montant bu 12 millions d'euros li ci des mooy amal accord personnel ak joueur bi li soxal wàllum salaire am ek jàppaleen Cancelo ki nga xam ne mooy Pep Guardiola boole ko ci effectif am bi nga xam ñoo war a amal ay jiwante cette saison pour rappel moom ma ngoon foofee ca benn waa Berne mujjul lever option d'achat bi ñu xaatimoon. Arsenal mi ngi ci yoonu amal waxtaan ivoirien benn mooy Nicolas Pepe bu ko defee kat ñu dakkal contrat bi dox seen diggante. Abdallah Ndour moom kat mi ngi ci yoonu quitté foofee ci suuf contrat bi dafa war a dem ba 2025 moom même jëwante woon na 27 matchs en Ligue 2. ek amal mooy retour en sélection grâce à ses performances moom la mu ngi ci yoonu amal déggoo ak club bi ñu naan Guingamp buy soxandikoo ci équipe. ek ñu jeexale kaag moom meen mooy Thomas Tuchel bi nga lañ ne ko ci situation joueur mi ngi ci yoonu kii te foofee ca Bayern muy Sadio wala boog Sommer le portier suisse moom nag voilà wax lu leer nag ki ay réponse mu ne ñoom dañoo concentré wu ci seen jours yi am ña nga fa. mu ne nag euh, du première fois nag seen équipe euh, di amal ay changement mu ne nag benn situation bi nga xam ne dinañ ko dund waaye nag voilà xalaatu ci lu bëri nag dañoo dem foofu ca Japon pour amal liggéey amal fa lu mucc ay kon kàddu yooyu li muy firndeel mooy que voilà leer na nag konteetuñu ci Sadio Mané na nga waxte dee nag li gën ci moom. mooy mu quitté foofee la li Ronaldo foofee ca Manchester United ñu koy teg ca di ko dal ak kan bii di kat voilà kon du compétition et que ça sera pas bénéfique pour l'équipe nationale du Sénégal. kon sur Sport 221.